thème de de de de l'émission moi je pense que tey le fait que tey jii que ñu am de candidatures euh, plurielles ça ça ça ça, démontre de de la vitalité démocratique vraiment si si suñu parti APR tey c'est c'est mooy parti bi tey bi gën a yëngu tey. ci tas dara jëm. non ci tas mooy parti bi bi gën a dund. ba ki war ki war a wax sax daa mel ni sax ñemewul wax. fi ñu toll nii mais ñemewul wax. déjà toog na toog na 31 décembre ci plateau mu ni carrément su ma nee candidat la. dëkk bi yëngu su ma nee du candidat du ma candidat sama parti day tas. Eh, amoon na ci hmm? non non ay waxu Macky Sall la président Macky Sall dani su ma nee candidat la hmm. dëkk bi day yëngu. su ma nee duma ma sama parti day tas. mais mais mais mais mais boobu boobu est-ce que boobu ba léegi. est-ce boobu ba léegi en tant que leader de parti su ma nee ma candidat sama parti day tas. boobu le président de la république. Macky Sall ñi ma dootuñu liggéey. venait d'être réélu en 2019. commencé guñ sax au premier trimestre gars yi ko wax ndax dinga nekk candidat wala doo nekk kon gis nga li xam nga boobu bu noonu woon réew mi mais waxul réew mi de moom interne kan xam xam nga wax ji bu fekkoon ne tey jii boobu bëri na ay kaymaa de dama ne bu fekkoon ne tey jii tey jii nii président de la république bu mu nee nekkatuma candidat da nga dégg ay responsable politique yu génn ne ñun président ku mu mënta tànn ànduñu si moom si si moom là au moins sa wax boobu dina dina am maanaa mais tey ñoom ñëpp dañ ne. dañu uh-huh. dañu jox président carte blanche. te président waaye waaye diw diw mooy sama candidat président ku mu ku tànn ñu ngi si gannaawam. waaye diw mooy sama candidat ñun milita yi ñun am nañ droit par rapport à ces candidats ne kii moo ma gën a neex si kii kii laa àndal. di def ay conférence de presse. mais est naa sax waa Fouta xaw ma ay lan responsable de commune xaw ma lan ak lan ancien lan. Mhm. def seen conférence de presse ne Abdoulaye Daouda Diallo mooy suñu candidat. mais am am nañ ci droit ah mais kon kay jox leen Macky Sall kóolute. jox leen mais si mais mais dama ne. Hmm? ba tey Abdoulaye Daouda génnul Amadou génnul ne man candidat la ñoom ñu ngi déglu le président de la République. les politiciens sénégalais. seen i manœuvre ci suuf. nga mais les les am nañ droit ne man. diw la àndal wala diw am na ñoo xam ne Aly Ngouille Ndiaye la ñu àndal. léegi dafa am loo xamante am na ñoo xam ne Abdoulaye Diouf Sarr la ñu àndal donc comme ñi mu am ne ñi ànd ak. Euh, Abdoulaye Daouda Diallo xam nga lan courage politique. Hmm? waaw xam nga laa jàpp courage hmm? politique. waaw. Hmm? ma nga am les moyens de tes ambitions mais nga am courage wax ni lii mooy sama gëm-gëm nga tranché ko mu leer ca ba mu jotee si tu veux être neel bëgg naa nekk candidat bëgg naa wuutu président Macky Sall ñaan naa yàlla mu fal ma taxaw ne moo gën ngay yebal say nit. fii fii fii kenn yebalu fi kenn franchement fii kenn yebalu fi kenn. non non non non <laughs> fii non non non. non oh, salle d'attente yaa ngeen salle d'attente. non jéem ah, non non non da ngeen accordé seen i violon. moo moo Badiane kii bu waxee mu feerlu kii bu waxee. parce que da ngeen daje da ngeen daje cas bu gën a critique. non non non parce que da ngeen daje cas boo xamante ni faw ngeen booloo. joxante loxo. joxante non dama ni wax ma yónni dama ni yéen ñaar faw ngeen joxante loxo. parce que dafa mel ni maintenant fi mu bëggoon daal daanalee. Ah, bu fekkee wax li nga xalaat ñu ne dañu la yónni. mooy ak li mënti xew. suñu président de la république Macky Sall. la ñu am moom la ñuy déglu. man je viens d'une structure qui s'appelle MENER mouvement national des enseignants républicains nga xam ne may mën a si soxo mu ko jiite. Adama Fall foofu la bokk. ah Adama Fall waaw effectivement. foofu la bokk ah, <laughs> fa la bokk fa la bokk. effectivement comprendre léegi. à l'instar de toutes les autres structures du parti à l'instar des cadres moom la Youssou Touré na waaw à l'instar des femmes hein, toutes les structures sont à l'écoute du président de la République loolu mooy li am maintenant président nag bu waxee ne diw àndal après officiellement nit ñi dinañ toog euh, door door door a wax ci loolu mais en tout cas li ma jàpp loolu ci waxat amul li ma jàpp non mais bu décidé kay amul loolu ci waxat mais mais mais jox nañ la kàddu décidé nga kay mais quelle que soit la décision sa décision am nañ ci appréciation am ci appréciation ne veut pas dire que ànduma ak décision bi